mi ngi consulté ay siisam nee nañ ko pare nan nee na ne ko réel pare na mu ne waaw mu ne maar la pare na mu ne waaw coup de sifflet ba dal na dimanche 10 octobre 2021 fii ci arène nationale 20 heures 5 minutes ne ko réel marle daw na jël ko ne ko réel marle ne ko leelu marle ne ko leelu doon na door marle jël ko ne ko réel doon na door marle jël ko galgal galgal ne ko reelu marle ne ko reelu Marley galgal Marley ngi bëre Marley ngi bëre ne ko reelu ne ko reelu bañ na Marley ne ko reelu ne ko reelu marle Marley galgal mbot laay laay la laa ko reelu ne ko reelu daa indi doole <laughs> ne reelu daa indi doole Marley takk na ko Marley takk na ko Marley takk na ko waaye ne ko réel mi ngi sene nekk ci lambam galgal na Marley Marley galgal na ne ko réel bañ galgal galgal galgal galgal galgal galgal mu bañ gis naa fi Balla Gaye Yékini galgal mu bañ mbot mbot mbot ne ko réel mbot na mu bañ sukk na jël tànk ba war na ko ndoomo da koy daan da koy daan Marley daan na na ko réel Marley daan na na ko réel Marley